señ mi no def sante yalla bu baax ya. yaa ngi si jàmm maa ngi ci jamm bu baax yow nak na tangay bi tangay baa ngi nii man maa ngi si jamm alhamdullah señ man de dama ñewoon pour nga wax ma lan nga gis ci seet bi ndax bima ma fiy mujj dag maa laajoon sama tour ya sama tour papa dama mal dina ko xol te boobu ba léegi mu dara tay nak ma ne mu ñew pour nga wax ma yow lan nga gis hmm? sama jigéen doy na war ba jàmm la sëñ bi jàmm la moom ndax man maa la diggoon ne la demal dinaa la seetal waaye jàmm ak pexeem yàlla ak dogalam ah sëñ bi yaa ngi may tiital de waa jour bi ma la waree seetal ci guddi gi dama amoon ay gan ñu guddee fi lool di waxtaan ak man waaye bi ñu ñibbee bi ñu ñibbee sëñ bi ma naa xaar ba guddi gi gën a sori ngir ma commencé set bi waaye fi ma tëddee di xaar guddi gi gën a sori fi la ma ay nelaw yu metti gane si ba mujjee ma ko set hmm. sëñ bi nga ne set bi see toog sëñ bi loolu na doy waar de. nii daal lay fi demee. déet bul sa ngem. ah. nag damaa bëgg na café gu saf suukar quoi. suukar baaxul. ah yow nag yaay doo suukar quoi café day saf suukar. café moom boo xasee bay def defal suukar rek mu saf. en tant que médecin nga digle naan suukar. non mais xaaral ne yaay suukar su manqué du baax. bu ëppee. waaw bu du baax. Ah, jeex na waaw mais na yem na yem tuuti rek muy weex. man nii laa bëgg sama café nii lay mel te boo ñëwee bii ngay naan. soo ñibbee si kër nga sukkal ba mu mel na lem dégg nga. baax na garaaw. kon kañ ngay yem. baax na garaaw waaw. damay saboté da ngay wax ne sama waa de da ngay wax ne café naara moo dàq indi sama café waaw indi sama café léegi baal ma géré ko rek léegi mu léegi mu jeex yow xam nu ma lay def rek hmm. waaye yaa ngi ci jàmm baax maa ngi sant rek comme d'habitude yaa xam na yàlla sant yàgg hmm. waaye am naa nag nouvelle bu ma neex ci bu ma déggee ne Eva dem na dégg ma am naa nouvelle bu neex laa bu ma déggee ne Eva dem na yee ay gone gi maa ko ragal kanam gu ñeme gi. waaye lu loolu yaay. man ñemewu ko xaw lan la. ah mais nag lu dara nag Eva nit la loolu laa jàpp wax dëgg yàlla ba mu fa nekkee ba tey amul benn jafe-jafe nit ku baax la dafay jàppale naa laa ci lu bari donc instant bi nag donc voilà delluwaat na ci ay mbokkam alhamdulilah. alhamdulilah voilà. voilà ndax wax yàlla ni ma ñemee woon Naara moom ñemewu ko ko xaw lan la nag sama yaram daal la ko nanguwul. amiin ñeme ko nag léegi. Mhm. maman bu dul dara. waaw. Euh, bëgg naa ñu waxtaan. waaw ci naaraa daal. Naara daal instant mm. bi xamatuma ko. donc bi ma xamoon démb ak bi ma xam tey dafa mel ni lu wute. Euh, léegi su ma guddee wàcc. dafay nara day wax ak man bama ma yuux te donc comprendre mu quoi bi sama yaakaar de si yow kese la nekkoon sëñ bi man dem naa fu nekk fu ma dem ñu resité ma bu fekkee que yow set bi man koy sëñ bi damay dee parce que man samay mbir sëñ bi dafa dëgër fu ma dem li nga ma wax nii loolu la may waxaat amatuma yaakaar si kenn kon koy sëñ bi bàyyi boo nga xool ma li may xool de xam ne damay faatu. dëgg la day am ay nit yoo xam ne nii seeni mbir day dëgër waaye fii nga ñëw nii fi la ñuy saafara lépp ndax lépp a ngi fii bul sa ngem léegi nag kon euh, pexe du jeex am numéro bi dinaa faral di ko jox ñi may liggéeyal su guddee dinaa la seetal waaye soo demee bu guddi gi sori nag ma woo ci numéro bi heure boo ci woo dinaa la wuyu. nga fàttali ma ko. mën naa la woo heure bu ma neex. heure la neex oote. ah sëñ bi nga jàppale ma de sama jàppale wut de moom buntu jàppale baa ngi nii ma jox la jox la sama numéro personnel waxtu wu la neex woote ci waxtu woo ci wootee dinaa la jël. incha allah dinaa réglé de mais dinaa la woo. kon maa ngi dem. waaw baax na nuyu ma baax àgg ak moom fenn fi wala yenn détail ndax man euh, li ma gën a bañ suma àddina mooy jigéen gu may tontu quoi billaahi bëgguma ko su ma nee benn nga ni fukk j'aime pas man ma tàggali yow nga nekk si jàmm ma nekk si jàmm sax moom ma gënal quoi du noonu waxtaan ak moom. ah yow yow bëgg dafa war xam te sax nag dangay kilifaam ñaari yoon waaye mu problème man dinaa wax ak moom. Mm-hmm. dinaa wax ak moom dangay kilifaam ñaari yoon nekk boroom këram boobu di ko nekk magam nekk léppam mm-hmm. taxawu ko nag dafa ko ci àdduna lu ko kenn defalut mm-hmm. yow naaraa mënulaa fay ci àdduna kon xëy na nag caprice si jigéen tamit dañ koy sóoraale da a ñàkk. day xool rek foo toll ci moom affaire yooyu. c'est que ñoom loolu lañ ciy jublu. amuñu comparaison. parce que tey euh, parfois sax euh, da ngay am ben yoon bu la bett mhm. nga wote ni ah amna naa yoon de mhm. ñu yaakaar ni da nga ko programmer yaay xam nga programmer nga yoon bi yaa ngi ko programmer xam nga. donc di di di détails yoo xam ne ñoom mën daal comprendre ma. di loolu loolu di moom moom xam nga lan la sey lepp communication la. dañ communiquer rek communication dal

da nga koo gëj a may xaalis xanaa. indi sama café indi. bàyyi sama café dama koy këpp de. ah man de wax dëgg yàlla café gi rek café goo xam ne comme li limon citron xam ko mooy café mooy café gi. waaw yow baax na dafa la jox café du la defal dara. sa xam nga hmm, iya, len ci naan. musuma yakane di nga ñew yo iya, tamit kan xam nga ne bo mu soxla damay daw ba daanu sa ñett ndax jaral gam non je te le jure dama jàppoon ne eh. ci wax kese nga bëgg yam gis nga bi nga fegee buntu bi ma ubbi ma yow. no gëmé mako lutax xam la motax sama mbëggeel bi yi jógee ci man di ñew ci yow moom ëpp doole. xam naa ni seddaayu ngelawu fajar bi daf may fekk ci sa biir xol ma sàngu <laughs> danga nga jóge <laughs> yu ma xam nga la mooy dëgg-dëgg mbëggeel mu ñaari xol yu yëgante mm-hmm. lépp ñu dund dafay neex en tout cas man ma bëgg la man ma jege la man ma teral la man ma neexal la man ma sang la man ma font man ma fon la man ma raay la lu ma neex la su xamal leen man sama yetu lu jéego mooy doole samay gët man sama mbëggeelu xol yokk na samay mébét. mais bàyyi yooyu tamit bu ma tisoolee wa. yarhamukallah ah maa nii. xanaa yaa ngi rêvé un jour nga ñëw ci lal bi. dëkk ci néeg bi taal cuuraay yi xumbal néeg bi ah, yàlla bu xaaju guddi gi jër sax ah. ci lu neex lan ay ñu ngi seet ñoom noonu <laughs> oh, loolu de ah. est xam nga leen waa Kiné noo def waaw maa ngi si jàmm sañ-sañ nga de waaw damaa génnoon hmm, pare nga li nga doon def kon naka tàngaay bi nag tàng na de ëpp na xanaa ko pour mu ñëw defar vente moo tax ah, ah kon woowoo ko. pour man woo nga ko sax. Eh, noppi sax boo ci jàppale soobee yàlla ci tàngaay lañuy xel di yendu sax jour. dinaa ko woo incha boo nga jàpp ci bu baax. man moom xaw ma fu mu métti lu ma paase fàtte naa ko. Mm, moom lijjantiwul dara. déedéet waa anamu sax moom. mooy ci biir de daa mel ne dafa am gan ñu ci biir tëju. Ah. <laughs> ci biir tëju. dafa am gan mi ngi tëju. am nga noonu ci tëju doon. sànq benn xale bu jigéen. jigéen. jigéen dala tëjoo bàjjen. waaw nag kum yem nag. mu jaaxal papis da du changé bàjjen. man daal ah, papis man xaw ma dafa xel mi dafa dafa nekk ci moom xaw ma man daal rafet naa njort nag maa ngi nëpp nëppal waaye dinaa ci jóg de. ah dana waa de papis daa ëppal de ah neexul ba neexul nag moom wax dëgg fa yàlla moom moom moom maa ngi nëpp nëppal waaye maa ngi nëpp nëppal sama xay de ah. ndax nag li nit ñi wax moom lànk naa ko nangu waaye nag gëm naa ne gëm naa ne maa danañ ko defante xaar sax déedéet bàjjen toogal toogal déedéet bàyyi ma rek toogal toogal rek gis nga lii maa ngi yar yaral loo xamante ni nii dana sama kaw lee mujj këpp de jigéen la te jigéen dañ koy sutura waaye doomu jàmbur la bàyyi bu demee nga waxtaan ak papis toogal ba ba kii Oh, foofu ndax sama kër gi du kër ak di fati jigéen ni ko yor ab héberge loolu duma ko nangu. yaa sànq rek bu maire bi ñëwee nga couvrir ma ma ne ci digg bi laay jaar lépp laa koy wax amul lu koy nëbb. moon nga ma yeeku. non ndax lii mënut gi ci yow nga ko am ci benn man damay dama naa man les ma piqué la pour doos dugg wala mbëggeel dab la sax yow mi ñàkku ne daa am loo ma def. non def ma la dara. Hmm. ça si man maa jafe ci góor ñi. moo tax ku ma am damay bëgg a téye nëkk. bi tey defoo ma dara. xam nga boo ngëbee te neewoo ko nëkk mën na ko foqati. Hmm. da nga ngëb bu ànd ak doole. <laughs> kon de sa bés am na doole. ah moo tax ma ne la. Hmm. yaay jant njolloor. ku la bëgg xool càkk day sonal ay bëtam. man maa la moom. kon baax na hmm. yaa moom waaye Eh, moom ay waay rakku sëñ mbilim <laughs> ya. leen loolu yow man may jàpp man may jàpp rakku sëñ mbilim di ko aj di ko aj waaw léegi xam na nañu def hmm. danga may bàyyi ma dugg ci salle de bain bi sangu ba set wécc ñoo ñu def lu neex <laughs> boobaa di nga xam ne ca <laughs> looy daw defaguma dara ngay dinga xam ne ko am naanaa doyewul dara ngungun ma dee la ko déggoo ma de. wuyu ma xanaa loolu mooy yaa xeetu naanaa ci ataaya. waaw dama maa ngi xaar. mais yow tey as nga de. <laughs> Yékini laa si Balla Gaye bala nga koo xam nga song ma. waaw xam nga dugg suñu groupe famille bi quoi. <laughs> xaaral xaaral yow sa groupe famille loo ci. gars yi salaamaaleykum salaamaaleykum man la Papisan à part aujourd'hui bu ngeen ma da xam ngeen ne dee naa daal wasalaam. eh man eh? damay fo. yii xam naa li mu wax adduna dem ñëw ah. dangaa mën rek ngay xam ne gay gu gu mag ki nga koy teel a dindi te lii mi ngi may bëgg ëpp ay loxo nag nëpp beeg nëbb nëbbal bi ëpp na ëpp na moom ëpp na torop man xam naa ne maa ko bëgg a yar yaral ci lii ba mu làgg ci nangu naa nag mu dem ca mbedd ma ñuy wax may weddi waaye biir kër gi moom mu mënu koo dëggal loolu du ko mën a dëggal de loolu mënta ne rek bu jëree sax ñu dugg ci maama ni jéem a xool ba xam da koo tayul wala lu mu demee ni yéen kat moom ñàkk tey laa koy dara dalu ko dara dalu ko. papis moom àndandoo yu bon képp àndandoo yu bon ndax am na xaritam bu ñuy wax ju fi ne noonu la mel. kooku moom moom benn lañ lu lépp lépp lu ko mas na naqari ci man day man ci moom ba ma bëgg koo geeram moo ma ciy tinu ba ci jànq yi ma daan jël mm-hmm. te moom moo moo ma yem moom it jànq bu ne yurub ci sama kër gi dana fexe ba rongolaasu fi ñëw kere fekk naa fi seen jataay neexu ma daajee man su ma wayee di woon sax ba tey jii nii kenn ko waaye nag man moom jikko jiñ def ci man moo ne ci man man dara fëkku samay bët xam naa ne moom mi wayadi day na ko leer ne danaa jóg ci moom. te su laa danaa jóg ci moom. da war ngaa xam ne danga jóg ci ma ndax moom xam nga ma yow. yow moom xam nga ma bu baax. Mm-hmm. papis moom boo ma bawoon ak moom ma fekk ko ak ndaw sa ci biir néeg ba ndaw sa laay njëkk a toroxal doo ko toroxal ndax nag am na jigéen a toog toogoo ci sa penku ndey xanaa ngay dox di toppi góor mu di la fat ci ay néeg waaye nag baax na. mu ron nga ma bàyyi rek ma dem yee ko mu xool fii laa toog na ko lijjantil jabar mu naan ma danaa xool. oh lu ma tax nanguut a takk jabar baa jëm. man de damaa yaakaar ne xanaa dafa dafa dafa laa liggéeyu jàmbur. Ah. ndax boo ko waxee waxee jàmbur muy daf daful. te bu dikkee te bu dikkee kii il est temps nga jékki-jékki rek takkal ko kenn tegal ko ci kër gi. moo xam naa daa bëgg lu xees est que duñ ko xoolal jigéen ba xees indi ko ci ah, kër gi. boobu ndax mu xasee ba wéri ko xees ka dama la teggi nag <laughs> <laughs> bu ma wax loolu nag

ah soxna Maguette ñu si jàmm baax a baax. yow kat dama la gëj a gis nag day àndoon sama mariage ba léegi. waaw waaw waaw moom saa moom moom depuis ca mariage ba léegi euh, na c'est que nag man. le problème en mooy damay gëj bawol nag. loolu moo tax pour ngeen gis ma du yomb quoi. ah loolu la kay. mais à part ça ça va. ça va alhamdulilah. moom. Euh, Mara nag dafa liggéey mi ngi hôpital. Hmm. xam naa nag wàccagul léegi moom. Ah moom nga soxla woon. non pas sax c'est que dama dikkoon bool. kooku mhm. moom il fait partie de moi. waaw man naa fi jaar rek xam nga pour nuyu ko quoi moo moom moo gën a naa si ma dugg bool ba génn. Ah, ah, te jaaruma fi quoi loolu moo taxul may naa fi ñëw jaar ko seet ko mais mais ba xam fekkuma ko moom fekk naa la fi moom yëpp yëpp yëpp benn la quoi. ah def nga lu rafet de. Mm. vraiment kontaan naa trop parce nit moom. Mm. mbokkam mënoon nga ñëw ba fi nga dem te do fi jaar. Naki mo do yeen ci jamm do mo faale. naari waxal li la fi indi. li mo fi indi kay dina ko wax parce que moma ma tax way xana nit bu la nuyo sa nga man ka fay wa dama fi ñewon pour nga baal ma dëgg yàlla ay erreur yu beure beure yo xamanteni maa ngi koy rëcc torop torop torop parce que jat bi ma joxe waruma ko woon joxe te xam naa ne loolu lu sama wareef waaye maa ngi jéggalu naari est-ce que xam nga ne jat bi nga joxe lu ne mënoon na ma cee fekk ndax moo doonoon sama gànnaay gi ma gën a wóolu doon gaar ngay dëkk bii di sañu fori kenn xamu ko kurul man ak yow ak ñi ma dëkkal nga walbati ko di ko jox sëñ bilim tooñ naa torop te mënuma wax lu dul baal ma àq wax dëgg yàlla bi ma koy joxe joxe ma ko woon tamit pour pour pour joxe noonu pour sama nafsu bakkan wala pour dimbale nit rek la woon. Mhm. non non loolu duma ko def. nañ trop. Mhm, loolu moom euh, xam naa dañ koy woo rek. waaw waaw waaw waaw incha allah c'est que nag euh, moom dama koy faral di oo lu bëree bëri si numéro am mais pour ma jot ko wala pour numéro bi am problème bu mag lay doon ah bon waaw xawma ma nag loolu lan mooy problème bi ban numéro nga koy woowee mooy numéro bi terminé 19 19 ah ok non numéro boobu nag mhm. yoratu ko parce que ni ko ci woo dafa bëri mhm. xam naa dama la jox numéro boo xamante ne boo ko woowee dama ko jot incha allah ah d' accord te bu ñëwee sax dinaa ko ñu woon nga fi ah ma dugalal ah, numéro bi bi moom boo ko si woowee di ko jot mhm. numéro bi moom boo ko soobee allah dañ ko jot. ah d' mm-hmm. jël naa ko ko wax léegi moom xam naa de toute façon dama ñëw dugg parce que xam nga rek damaa damaa bañ a guddee quoi sa fa ma ñibbi dafa xaw a sori. waaw toogal rek ci kanam ni waxtaan. ah bàyyi rek ma dem garaawul xam naa. benn yéen moom mooy dàq incha allah. waaw ah, d'accord ben benn problème yéen moom yéen moom sama ay nit ngeen mo wax deug yalla ñu ñu ñu ñu baax ngeen o ci tamit ñu fonk ay nit ngeen. lool mom am na ya baax rek ah motax motax motax tax tamit comme que man dugg naa ya. Bawol mom il faut ma ñew fi gis leen nuy leen soo dugal deug ba quoi xamna lu mo gëna na a. li nga def mom lu rafet la. kontaan na trop wax dëgg fa neex yalla wa ok kon baax na. baax ma ngeel ba neex su ma ràññee nga nuyu ma. dina ko dégg incha allah. te nit kooku xam nga ko bu baax waaye maa ngi jéggalu bu baax. ngir dimbali nit ba lor sa bopp man nag mënuma laa def nen ndax sama doom nga te it mbaam wékk na doom ja waaye bañ ko benn yoon xamal ne bés ni ki tey tey laa la gën a def sama xol. ba tax na jéggal la na nga dem jeli say bagage te nga ñew tok fi ci kër gi ndax amuñu lu suñu dëkk bi di sañu fori waaw baax na dégg naa la suma démé kër ga dina jé sama bagage ma ñew waye naar bu ëllëgé bu mu la dalat ben yoon ndax dénga ma lagal te dem te ñew maay dem maay dem demal te ñew saña fori kur ki nga saña fori yami naki yami raka ndax duy kerax ko fu nak fu toñu to waaye baalida ndax fukki ngoo fukk kingo fukk kingo fukk kingo